asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan ak suuf di fii ci seen jotaay senegaal ca kanam senegaal ca kanam walla suñu réew mi nan lañ koy xalaatalee càmbar li ko gàllankoor boobu ba léegi mënul sukkaliku xoolit yan yoon yañ war a jaar ngir suqaliku doon loo xam ni lu gaaw la lu wér la lu ñuy dund la bés bu ne ci mim réew ndax duñ jóg di ko baamtu suqaliku jëm kanam si la doomu aadama mën a amee dund bu neex dund bu teey réew yi nga xam ni suqaliku dafa wér fa la jàng dem ak ñëw mbay napp sàmm lépp loo xam ni doomu aadama la koy yittewoo foofu la gën a jàppande tey boo demee si réew yi nga xam dañuy suqaliku lekk fa la gën a yomb dem ak ñëw fa la gën a yomb faju fa la gën a yomb Euh, am foo dëkk fa la gën a yomb tey boo ñëwee suñ réew yi lu mel ni téléphone rek tey ñun li ñuy dépenser téléphone moo ëpp téeméeri yoon li tubaab bi di dépenser fële sa Allemagne wala France pour lan ndax ñun suñ réew yi suqalikuwul moo tax mbir yi day gën a seer suqaliku nag boo xoolee réew mu mel ni France ñoom jamono yi dañoo am euh, jafe-jafe si wàllu seen këru liggéeyukaay yi dañu taxawal ben ministère bo xamni tuddé ko ministère du redressement productif pour rek këru kay ñu suqaliwaat leen manam ñun sunu mu mbir yeb dañ ko wara jël ko si sukkali ko dañu waron am tay ñun ministère bo xamni développement donc kot kep lo rek lay lijeenti sunu président sunu premier ministre mu ministre yeb nan la réew mi di développer nan la réew mi di ko si loolu rek lañu waron yëngu bés mu ne nag dañ siy ànd ak suñuy gan yoo xam ne ñoom réew mi da ñor yi teel ñu ñëw ngir joxe seen xalaat tey ñu ngi si ànd ak Youssoufa Sy Youssoufa si moom mi ngi bokk si waa réseau dooleel yaakaar ak it Dame Mbodj moom moo jiitee CUSEMS CUSEMS moom mooy syndicat jàngalekat boobu yor daara yu diggu doom yi euh, daam ñu ngi lay nuyu la dalal. ñu ngi lay fay di la sant ak di la gërëm ci li ngi ñu dalal fii ci sa émission Sénégal ca kanam. <coughs> Youssou yow ñu ngi lay nuyu la dalal. <coughs> ñu ngi lay gërëm di sant bu baax vraiment di la remercier tamit si invitation bi si plateau Sénégal kanam. daam yow moom kenn dootul wax euh, Sénégal euh, yow yaay kan mais nag daam ah jóge nga chargé de revendication léegi yaay jiite CUSEMS daa mel ni is no good nga def. non du is no good. Ah, xam nga is no good voulait être calife à la place du calife yow léegi nekk nga calife. waaw mais loolu xam nga euh, comme ni ñu koy waxee boo defee benn diir ci kuréel ba am ci expérience. bulu jàngalekat yi daje toog daan ni yow yaa ñu doy pour nga jiite ñu dooman dul nangu parce que la rek sas la rek mais doyoo ñëpp de parce que ñëpp ànduñu ci waaw ñëpp ànduñ ci mais lépp loo gis euh, moom euh, boo xamee la ca biir rek da nga xam ndax euh, jaar na yoon wala jaaruñ yoon rek moom moom intéressé ñi si ñi si àndul ñoom lan lañ lay waaw maanaam ñun comme CUSEMS dafa am dafa nekk syndicat bu am doole

am ñoo xam ne dañoo ñëw contesté loolu. te loolu ñu contesté te loolu ñu contesté. ñoom ñoo gën a xam ni loolu la texte yi wax daf ni pour ñu suñuy kuréel établissement bu ne day am ku ko jiite département bu ne am ku ko jiite région bu ne am ku ko jiite au niveau national aussi am ku ko jiite ñoom nag ñu koy contesté ñu ni dañuy jël rek ci département yi rek ñu daal di fay fale secrétaire général bi loolu moo doon coow li amoon kese mais nag ñun li ñu jàpp mooy li am solo mooy euh, réew bu coow amee justice moo koy tranché man daal li ma jàpp. mooy que ni ku am lu muy contesté na dem ci justice. Hmm. mu contesté ko jaar fa mu war a jaar indi firnde yu war a ware ne li muy euh, contesté nii la war a demee bu ko defee justice àtte léegi nag da jàpp nañ ni loolu justice na ko def. Hmm. parce que coow li àgg na ba foofu. Ah. donc jàpp nañ am na ñu dem waaw am na ah. ñu dem justice. alors euh, ba bii weesu rek ñoo ngi woon devant le juge des référés. yow mii man samay avocat ñoo dem demuma. mais jàpp nañ ni daal lu yoon xës yore. man dootuma ci wax dama koy bàyyi yoon ba yoon di si. mais nag doy na waa jàngalekat yi bu ñu demee tey bay yegg si yoon ngir ay wàllu euh, post euh, secretaire général yooyu loolu lu xaw a doy waar la euh, daam sunu sunu sunu jàng beeg jàngale bi yéen CUSEMS ñëpp dañu xam ne am ngeen doole comme ni nga ko waxee ndax. yëngal ngeen fi école daaw moom grève leen loolu moom euh, ñëpp nangu nañ ko mais daaw jee gis nañ juróom weer yoo xam ni dangeen ko grève école yëpp euh, maanaam mu gàllankoor leen mais euh, daam affaire yi fan la toll. waaw affaire yi fi mu toll mooy d'abord il faut ñu nangu ni réew jàng ak jàngale moo ko yor. ah loolu de ànd naa si. réew mënta développer te njàng maa ngi jàngale mu baaxul pour nga développer sa réew il faut nga am comme ni ngay lim sànq. nga mën a lekk boo bëggee lekk nga bëgg a dem transport nga mën a transport nga mën a feebar bëgg a mën a faju mais yooyu yëpp ñuy lim ña koy def fokk ñu jàngal leen. wér ku leen di jàngal jàngalekat yi. donc réew mënta dem sax à secteur prioritaire de développement bi mooy njàng ak jàngal. kon li président wax ni mbay la yow. voilà foofu lañ àndul ak moom. parce que même États-Unis gi ñuy cité. ci hmm. am doole ci agriculture mais agriculteurs yi boo leen gisee dañ leen firmer dañ leen a former. ba nga xam ni dañuy gis ñu am ay doctorat mhm. am ay maîtrise mhm. am ay licence ñu forme tàggat leen nag ca structure yi nga xam ñoo yore wàllu mbay ma ba ñu xarañ ba bu ñuy bay danañ xam lii buñ ko defee lan la ñuy am yan rendement la ñu war a donc ñun li ñu <laughs> jàpp mooy mhm. foofu d'accord ak ñoom approche ñun li ñu gëm mooy pour nga développer réew fokk njàng meeg njàngale mais nag daam tamit yow boo xoolee ñun suñu réew mi boobu ba léegi li ñuy def suñu budget si njàng meeg njàngale duñ fa laa jëm fa jëm boo jëlee ci fukki at yi weesu hmm. lu mat 4000 milliards dugal nañ ko ci njàng meeg njàng moo xam ne askan bi seen xaalis la 4000 milliards 4000 milliards yoo xam dugg na ci njàng meeg njàngale mi ci fukki at yi bu ñu jëlee ministère éducation rek budget bi ñu koy jox par at ñu càmbar ko ci tënk mën nañoo jàpp ne presque 4000 milliards dugg na ci njàng mi te fenn la feeñul pëcc xóog yi tey la gën a bari tey la coow li gën a bari. waaw daam loolu tey la tey la gën a nekk feebaru màggal. waaw lu tax waa li ko waral mooy euh, réew comme ni mu ko waxee boo jàppee ne njàng meeg njàngale bi moo ko yor pour mu développer. Mhm. da ngay nangu jox priorité la nga xam ne moom mooy moom moom fa lañ fa la la ñuy dugal xaalis askan bi que ñun li ñu jàpp mooy xaalis boobu yëpp dugaluñ ko fi ñu ko war a dugal pour que réew mi mën a dem benn. ñun suñu système éducatif bi ñu yore ñu xam ne ca tubaab yi lañ ko jëlee indi ko ba léegi méngoowul ak suñu bëgg-bëgg ak suñu man-man ak suñu euh, objectif de développement yi ñu am ba nga xam ni dañ ko war a càmbaraat xoolaat ko ba tënkaat beneen système éducatif boo xam ne sax dana tënk sénégalais bi ñu bëgg ñun am ak fañ fu nga xam ni ñun. est daam yéen en tant que syndicat def ngeen proposition si wàllu. mais proposition yooyu def nañ ko c'est vrai que les ñu ngi laaj xaalis. mais laajuñu xaalis parce que dañuy laaj xaalis mais dañuy dañuy c'est vrai que ci plateforme bi boobu moo ci gën a fës parce que temps de parole yi ñu presse bi di jox du bëri mais ñun suñu plateforme yi boo ko xoolee ni ñu koy tënkee dañ ciy leeral ni gis nga euh, système c'est un le système éducatif est global. maanaam njàng meeg njàngale mi dafa bëri ay pàcc yoo xam ne bu rek du dem. mais daam da nga ni léegi yéen def ngeen proposition. si beneen système éducatif boo xam ni dafay ute ak bii ñu tubaab bi bàyyil def ngeen ko. non ñun dañ cee xalaat ba nga xam ne dañ ne nañu woote. ay ay ay ay est-ce xalaat boobu bind ngeen ko yéen nekk bii mooy système éducatif bi nga xam ne Sénégal moom la war a suqali ko. dama ne la ñun bu ñu jëlee ñun CUSEMS bu ma jëlee benn exemple ci koo xam ne moo yore wàllu conception ci sunu syndicat jox nañ ko liggéey boobu ba mu def ci ay jéego yu kenn dul werante mu Isaaxa Jàllo non def pare nañ ci. assises yi ñuy woote ni suñ ci toogee ñun danañ def ay propositions yu leer nañ yoo xam ni c'est c'est des études scientifiques yu ñuy def yoo xam dañ koo teg ci lu leer nañ pour wane ni système éducatif bii ñu yore baaxul c'est-à-dire la ñu ci tubaab bi lañu ñu yore rek di tëñëx di dem te dimbul beneen bi nag mooy bala bala ñoo bala ñoo bala ñoo bala ñoo gën a mën a dem mooy il faut tamit ñu nangu ne ñaari pàcc dafa am ci njàng mi njàng lañu ça dafa am lu ñuy tuddee les questions conjoncturelles ak les questions structurelles questions conjoncturelles yi mooy yi nga xam ni mënta xaar dañ koy régler léegi léegi parce que boo ko réglé wul dal du am te su dal amul ba quantum horaire bi nu soxla pour jàng ko am toujours da ngay dégg ay grève ak ñàkk fayda benn mooy ñuy fay salaire jàngalekat yi bu weer beneen bi mooy euh, ñu ñu fa xam ni euh, accords yi nga xam ne état bi mi ngi koy signé ak jàngalekat yi bu respecté léegi beneen boobu tamit. coow la mais bi nga xam ne aussi moom la ñëpp di xaar ci kenn xamul lu ko yeexal. ci hmm. question conjoncturelle yi ma nekk mooy euh, projet de protocole d' accord bi. ah d' bi ak syndicat yi ñu ngi waxtaan lu mat at. waaw at suñu bëgg parce que novembre bi ñu nekk lañ dooroon mais ñuy waxtaan at ba tënk kayit yi ba ni lii mooy. si gouvernement bi ak syndicat yi déggoo nañ ci waaye pour mun ñu mën koo doxal. waaye ba léegi kenn mën mënu laa wax ci jàngalekat yi lu tax ministre bu bees bi mënta waxtaan ak yeneen naataangoom yi pour ñu toog ak jàngalekat yi syndicat yi ñu signé accord bi ministre bi moom fas ko non ministre bi jaay doole la fi nekk maanaam njàng meeg njàngale boobu tam bokk na ci li li indi dal ci njàng mi mooy ñu péncoo ko di waxtaan bañ a jaay doole parce que jàngalekat boroom xam-xam la te xam-xam bu ñu ko xasee wax rek doole dem na donc lii yoon mooy ministre bi di toog ak kuréelu jàngalekat yi di waxtaan ak ñoom lépp lu ñuy def ñu ciy diisoo te ministre bi moom du diisoo jaay dool rek lay def ba fii ma lay toog ne mën naa la wax ne am nay jàngalekat yoo xam ni juróom-ñetti weer a ngi ni seen salaire nga ni juróom-ñetti yoo xam ni ñaari jàngalekat yoo xam ni ñu ngi lycée Kennedy te dañ leen a tooñ di leen jaay doole dagg seen salaire lu mat juróom-ñetti juróom-ñetti weer ñeneen ñi euh, lu mat euh, jàngalekat ak ñeent yoo xam ni toog nañ lu mat juróomi weer ñoom it ñu dagg seen salaire di leen jaay doole c'est-à-dire di affecté nit ñi ay Tiwaawoon di affecté nit ñi ay usuy di jaay doole lépp ci ci ci wane ne man maa yore doole ministère éducation lu ma neex def xam nga loolu du indi dal ci njàng loolu non non non léegi nag rek ci ci ci si bi mooy yooyu problème lu ñu war a saafara ñu indi ñu ñu wa ñu teg fi ministre boo xam si dal la ku mën a waxtaan yi mais mooy question de fonds yi mooy question structurelle yi question structurelle yi nag dañ koy pencoo ñu xool système éducatif bi def un diagnostic sans complet système baaxul. système bi moo baaxul c'est-à-dire système bi ci boppam dañuy tëñëx tëñëxi c'est-à-dire li tubaab de tuddee pilotage à vue moom moo am ci njàng meeg njàngale c'est-à-dire dara jaaru ci yoon li ñuy jàngale suñuy doom du lool ñun Sénégal lañuy ñuy xaar. Mm-hmm. méngoowul ak suñuy suñu suñuy valeur méngoowul ak ci suñu objectif de développement. Mm-hmm. maanaam dañuy dem rek tëñëx tëñëxi te loolu tant que ñu ngi koy def dañuy kon ne yàq xaalisu réew mi. ba noppi ñun ñuy tëñëx tëñëxi coow yu bari ci njàng mi mu nekk feebaru màggat foo laal muy metti te duñ dem fenn bu ko defee Sénégal du former médecin yu baax parce que jàngalekat yi bu ñu baaxul wax ma jàngalekat bi nga am moo wax la ban médecin ngay am ma wax la ban. Euh, agriculteur ban journaliste ban journaliste ngay am. bés bu ne nga wax fi fauti journaliste yi def te li ko andi mooy que dañoo amatul système éducatif bu mën a tàggate noo xam ni lépp dina dal mu jaar yoon ba li ñu soxla ci sunu réew ba bu ñu amatee sax benn euh, benn benn tuyau bu toj. ci réseau bi. dañ ko mën a defaree Sénégal. parce que tàggat nañ réew mi ci système éducatif bu baax boo xam ni dal na Sénégal doy na Sénégal doy na ñëpp loolu mooy sunu problème. mais euh, daam franchement nag ku waxal yàlla rek xam ne li nga fi wax nii moom. nit mun na koo dégg xel mun na koo nangu ndax système moom mooy lu mëtale loo xam ne si la benn mbir di tegu di dem wala bañ a dem ku ñëw ak lu am rek système moo koy doxal daa mel ne jant bi day euh, sowee fii maanaam di day fenqee fii di sowee fii gis nga bu fekkee ne yow système bi nga yor méngoowul ak yow sa yow yaay kan méngoowul ak yow lan nga am méngoowul ak yow lan mooy say jafe-jafe méngoowul ak yow fan nga bugg dem mais système boobu du mun dem te ñun si wàllu jàng ak jàngale daam li njëkk man dama jàpp ne que ñun ba léegi ñun xam yi nekk fii ñun ba léegi am répertorié gu ñu ñun suñu ay savoir xam-xam yooyu méngoo ak ñun li ñu xam ñun tam lan lañ am yan nit la am lu tey est-ce que jaadu na réew mu mel ni Sénégal ku mel ni Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba kenn ko jàngale sunu école yi. voilà léegi ku mel ni euh, Cheikh Sidi Hadj Malick kenn ko jàngale sunu école mais yooyu maanaam yu ñu war a saafara am système boo xam ne dafa méngoo ak ñun ñooy ñan fan lañ jóge yan ñooy sunu ay jafe-jafe. ak it fan lañ war a dem ba pare bañ a tëju nag xool tamit àdduna bi li ñu am ñu xool lan lañ fa soxla nag duñ jël n'importe quoi. loolu ñu jël ko. ñambaas ko ak ñun si li ñu am. pour mun a am système bu dëgër. mais euh, daam est-ce que yéen euh, assises yi di ñëw yéen am ngeen si yaakaar. non assises yi xamal tax suñu xel tey ci.

ci biir ville de Touba. donc pourquoi parce que lañ fay jàngale mengoowul ak ñoom lañuy xaar. mais tey jii bu ñu defoon système éducatif boo xam si comme nañ ko waxee tënk nañ ko ci li ñu doon ñun. ak li nga xam ne moom lañ bëgg ak euh, suñuy réalité mais ñoom seen bopp ñoom ñooy ñaax nit ñi pour ñu dem ci maanaam dañ koy approprier wu li tubaab bi wax. donc ñun li ñu jàpp mooy. bu ñu bëggee assises yi jaar yoon nañ fexe ba lañ fay tënkee. mu doy sénégalais ba sénégalais yi nangu ni li ñu fi teg légui lu bees la lo xamni and na ak ñom li méngoog ak i bëgg-bëgg ak li ñu doon bu ko défé euh, ñu mëna jëm ci kanam bu ko défé doot ñu yàq xaalisu réew mi ci at mu ne rek ñu daal di voter benn budget assemblée nationale dajalo wax wax ju bari té dara du ca soti ñuy tëñëx tëñëx def pilotage à vue ba kañ lool sénégal waru ko nangu sénégalais yi ñoo wara taxaw taxaw ni ni taxaw tem daal di taxaw nak ñun li mënatu la konné parce que réew mi du ñii ñu jiite ñoom moom xaalis bi xaalis bi c' est l' argent du contribuable sénégalais c'est-à-dire que xaalis bi comme ñoom ñoo ko moom damay wax toujours ay parents d'élèves ni leen yéen yéen a ñuy employé pourquoi parce que état de moom lee muy utiliser sax yéen a ko moom maanaam yéen a moom lépp comme yéen a moom lépp nag yéen def comme réew yooyu ngay cité sànq parents d'élèves yi toog pas ay ñetti parents d'élèves wala ñeent yu ñëw rek naan ñoom ñooy APE bi mais les vrais parents d'élèves maanaam ñu yore seen i doom ci école yi dajaloo ni ñun lii lañ bëgg ñu tàggate ko suñuy doom parce que nii lañ bëgg suñu doom nekk loolu ñu ngi siy ziar suñu wólëree Cheikh Mbow

franchement ku waxal yàlla rek xam ne parents bi dañu sàggan lool comme ni nga ko waxee APE yi léeg ñeenti juróomi parents d'élèves ñoom si ñëw te loolu moom jot na école bi su amee crise bokk na si ñi euh, participer contribuer si crise bi parents yoo xam ne dañu sàggan xamuñu école ba la fa xew xamuñu kuy jàngal seen doom xamuñu seen doom la mu fa nekkee loolu vraiment dafa war a jaar Youssou yéen seen euh, kuréel gi euh, réseau dooleel yaakaar si lan ngeen di yëngu D'accord. réseau Doole Yaakaar dama d'abord d' Apporte si apporter une précision de taille parce que souvent nit ñi dañ koy jaawale ak mouvement Doole mouvement Doole Yaakaar xam day yëngatu si le politique Le réseau Doole Yakar, moom yëngatuwul si le politique politique taxu ko jóg. loolu yëngu si développement kese na ni yëngatu. nan ban fànn si développement ngeen donc nous, parce que ñun n'avons ni un mouvement de soutien ni un mouvement de politique ñun développement bi vais may wax historique bi réseau Doole Yakar. ku ko jiite donc la coordinatrice nationale mu ngi tudd Adja Diossi Bey ngi ko xamee fem boo xamante ni mu nañu wax ni gaynde la si wàll développement moom moo ko mos a ñor si la mos a yëngatu. dafa am mu daje woon ak président Macky Sall ba mu nekkagul woon au pouvoir parce que xamante ne bu yàgg depuis 98 ba mu def sama ba président Macky Sall ba mu dajalee femme yëpp nekk Adja yoo xam naa la xam naa si li ngay yëngatu bu baax dama bëgg nga jàppale ma si politique mu ne ko mën président mënuma la jàppale si politique. Nous la si développement ba ñor si la xam mu ne ko waa kañ nag a soxla. mu mu avez si experts avez ñu ñu Nous, ben projet projet de développement pour Sénégal lan nous développer Sénégal lan ko mën mhm. ne ah ñun gis nañu Sénégal ñaari piliers bu ko ñu mhm. a Sénégal mën dem suqali mi mbay mi ni tudd. Hmm. agriculture bi ak artisanat bi. parce hmm. que surtout artisanat bi gis nañ ni pratiquement ñuy artisanat bi li muy produire. de bëri na lool mais qualité bi des na. artisanat bi daal moom mooy ñi nga xam ñu ngi si wàllum wuude. wàllu wuude couture même bâtiment bi sax mi ñu wax. waaw si artisanat la mbay mi sax. artisanat même agriculture sax artisanat. parce que léegi yéen ñaar yooyu euh, mbay mi ak artisanat bi. Euh, manam ban gis-gis ngeen ci am ci nu wara war a suqalee mi. waaw ni gis-gis bi moy d'abord dañuy gis ni comme artisanat daal ñu non liggéey depuis suñu mam ba léegi moom ñu utiliser. Mhm. moyens rudimentaire ah, ak ak la précarité. noonu ñu utiliser ba léegi di ko di ko di di di si kii te gis nañ ne réew yi nga cité sànq yi développé yëpp artisans yi ñoo fa gën a tedd ñu pourquoi pas Sénégal léegi ñu gis ni artisanat pratiquement si milieu informel ni ñuy mos di liggéey di yëngatu. Mm. te loolu tam di yoon. Mm. gis nañ fi uude yi da ngay gis benn puxus bu ndaw la ñuy nekk. nekk si personnes di kurti kurti. Mm-hmm. donc ñun loolu jaadu yoon. Mm-hmm. te lii bu ñu ko organiser li leen doon manqué organisation moo leen manqué ñu ne lii il faut ñu organiser leen. ne leen leen di organiser ñu ne dañuy mettre en place un programme national de restructuration et de revalorisation des corps de métier. Mm. léegi buñ programme boobu bu ñu koy mettre en place léegi ñu ne nag dañ leen di dugal si système des coopératives parce que système de coopérative système de am solo que parce que pays développé yëpp coopérative moins développé. France il y a 21 000 entreprises coopératives. avec 23 millions de membres. donc vous donc c'est OIT dans le monde il y a plus de 100 millions de membres de coopératives. 2012 ONU a déclaré euh, année internationale des coopératives. Nous, mhm. avons comme slogan l'entreprise coopérative pour un monde meilleur. Mhm. ñu gis loolu que ah, nous modèle bi est ko importé. indi ko coopérative est-ce que vous nañ. installé nañ coopératives. fan c'est le réseau de l'IACA. 10 coopératives au niveau national Nous avons une coopérative agriculture élevage pêche. Mhm. am une coopérative transformation des produits locaux. am une coopérative service. am une coopérative menuiserie bois tapisserie. am une coopérative menuiserie métallique et mécanique. am une coopérative coordonnerie. coopérative couture coopérative bijouterie ñi ngi commencé yëngu ñëpp ñu ngi commencé yëngutu ñun ñëpp am nañ seen carte maam ñu ngi yëngutu oh parce que coopérative ban ban ko ban ko defee ba pare ñun dañ leen njëkk def dañ def dañ commencé dugg si formalité administrative ñu déposé kayit yi toutes les coopératives agréé nañ leen am nañ seen kayit hmm. donc gis nga léegi si biir membre yooyu bu ñu leen wooyee ñu ne leen biir coopérative coopérative il faut que ñu am suñuy wax éducation coopérative njàngat tam li dugg bu diggé ci dem tam si euh, kuréel di si yëngatu hmm. il faut nga xam kuréel bi moy lan ak lan lay yëngatoo ak fu mu jëm hmm. ñun tam loolu ñu taggal leen ci éducation coopérative ñu né lan moy coopérative xamal na né lan moy coopérative d'abord loolu de solo donc parce que doolé mom moy euh, mbolo mom moy doolé waaw te artisan yi artisan au Sénégal ku leen gis li ñi def nga xam ni ñi yalla may na leen xam-xam may na leen xarañ day soxla rek comme ni nga ko waxé ñu organiser ba pare ñu dooleel seen bopp si wàllum bennoo te coopérative yooyu mun na nekk lu leen di dimbali ñu xaar tuuti rek def suñu critique de texte mbokk yi comme niñ koy faral di defee ayu bés bu nekk dañuy bind benn bataaxal jébal ko kenn ci kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo jiitee réew mi keroog président Macky sàll jébbaloon nañ ko benn bataaxal si ni que ñun suñu réew Sénégal ba léegi sunu démb bindaguñ ko bindaguñ sunu histoire officielle ba léegi kenn nag si ñi koy xelal woo na ma ne ma waaw loolu war nañ toog li nga wax ni président jot na bataaxal bi war nañ toog pour xool nan lañ koy euh, jëmmalee euh, bi ñu toogee it jox naa ko sama xalaat nee naa ko mbir mi daal lu yomb la dees naa rek xool fii fii ci université Ndakaaru Euh, ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na fii am nañ fi ñun tey ñoo xam ni démb lañ jàng ñu mel ni ñoom professeur Iba Der euh, ñoom Ibrahima Thioub ñoo ñëpp ñu xarañ lañ ñu toog rek amal benn jotaay euh, benn mbooloo boo xam ni képp ku sa xam-xam màcc si suñu démb yow nga indi sa contribution ñu ñu tënk loolu parce que jaaduwul réew ba léegi démbam histoire am bind ko tey nag bataaxal bi dama ko bind premier ministre Euh, madame Aminata Touré Limokosiwa premier ministre Nenako, en tant que citoyen je souhaiterais attirer votre attention de chef du gouvernement du Sénégal sur deux phénomènes nga xel yow mi le premier est que votre passage au ministère de la justice pendant

qui en, ont bien, qui en a bien besoin attendu de vous n'ont pas été au rendez-vous li ñu doon xaar si yow si sunu walum yoon nga indi ko si ay coppite ngir gën ko yoon wi gëna bax sunu attekaay yi gën a citoyens yi nga xamni doomu réew mi bu ñu jëflanteeg yoon ñom ñu am mbégte lolu mom xaar nañ ko si yow mais gisuñu ko nous appelons de tous nos vœux un ordre des choses totalement différent pour ce qui est de votre primature fi vous toll nag leneen la xaar si yow lu ute ak ni nga taxé woon ministère de la justice nga xamni ne indi woo fu benn coppite fii bi nga nekkee premier ministre ñu bugg nga indi ay chopité yu wër yu jamais réew mi kanam réformer en profondeur l'administration sénégalaise pour qu'elle soit plus efficace et donne entière satisfaction aux citoyens madame Dal ñu sous lay ñaan suñu administration bi nga fexé ba indi de ay chopité yu tax administration bi ñi nga xamni ñoy nous doomu mi si moom fait. bu dara ñu jot ko impulser de la valeur ajoutée dans tous les secteurs et domaines en sorte que l'histoire se souvienne de vous comme d'une grande dame de développement et de progrès et non juste comme d'un simple accident primatorial Madame Dal, mbooleemu euh rewmi liko ngank ñu ngi lay ñaan nga indi fa ay coppite yu koy kanam yo xam ne dañ la fàttaliku comme ko xam ne jigéen bu manam mën góor boo xam ni taxaw na si lu mu waroon taxaw ko deful lu rek dañuy jàpp ne yow de ah ñëw nga rek dem comme ñi fi ñëw ñeneen ñi ñëwoon rek dem ñaareel bi nga xam ni nag moom lay wax le second est que bien qu'étant ministre de la justice vous étiez au concert de la fête de la musique le 21 juin dernier faisant du bégué et dansant le coco et le ah Madame, 21 juin bi yow premier ministre Aminata Touré fait qu'on la nga ministre de la justice waaye demandé nga concert boobu fële ce Madame, maanaam di fa fecc te fecc yi ne nga da nga il béggee nekk fa naan namuma et ak ay namuma ah ceci ne saurait être digne de votre rang de premier ministre Lol nak bi nga que ministre de nga ko ah je ñu mel ni man vous ñaawlu won nañ ko en tant que premier ministre mom lolou mom mom mëno ko def et nous sommes persuadés que vous en êtes parfaitement conscient te lolou am nañ njott ne yow lolou xam nga ko vous fi dem di bégee di di di di ak di ah veuillez agréer madame le premier ministre nos sentiments patriotiques ñu ngi lay gërëm di sant. mbokk yi tey sunu jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi si ànd ak euh, Youssoufa si moom mi ngi bokk si réseau dooleel yaakaar ak it dàmbooj moom moo jiite CUSEMS syndicat boobu ngànk daara yi nekk si daara yu digg doom yi euh, daam yow lan nga jàpp ne mais daam ren grève du am waaw jàpp nañ ne buñ ñun de loolu lañ bëgg parce que xam nga. alhamdulilah bëggoon naa ma foofu parce que grève bi nga tudd noonu je sais yu bëri bi nga invité dinañ jàpp ne loolu xam na xëy na danañ ci bëggul ci dalal seen xel ñu bëgg leen leeral ni ñun jàngkat yi jàngalekat yi grève bu ñu ko defee rek mooy ñàkk nañ pexe parce que ñun lii suñu taaru réew boo ñu am système éducatif boo xam si day am dal grève yi wàññeeku wala mu jeex. ah ku loolu ñun ren ñu ngi wax parents d'élèves parce que ne bu dee ci ñun rek la dépendre su fekkente ne li ñu warloo gouvernement bi tañ waxtaan ci même sali 5 bii ñu jógee euh, ñetti fan def nañ ko fa pour waxtaan ci waxtaan nañ ci ñu ne bu ñu bëggee dal am ci njàng meeg njàng mi ñett yi fokk mu am wala ñeent. Hmm. benn mooy gouvernement bi accord yi mu signé ak jàngalekat yi mu fexe ba dalal xelu jàngalekat yi doxal ko question euh, yi nga xam mooy question conjoncturelle yi jàmp kat yi mu taxaw ci nu mu gën a gaawee bu ko defee loolu mu mu féete boor ñaareel bi bu ñu paree tamit mooy projet de protocole d'accord bii ñu yore nga xam presque léegi signé rek moo ci nekk pour mu pour mu nekk protocole d'accord ñu signé ko ci nu mu gën a gaawee parce que waxtaan nañ ba tënk ko ba déggoo ci euh, daam léegi yii buñ ko defee yii buñ ko defee ah ba noppi nag ñoom ñu jàpp ni dañoo war a fexe ba euh, ñu jëm ci euh, waxtaan woo xam ni système adéquat bu bu pour question de fonds nous question conjoncturelle de mais ministre parce que hmm. ministre hmm. ministère de l'éducation pilotage ministère de l'éducation c'est sans précédent hmm. c'est sans précédent c'est-à-dire euh, la semaine passée inspecteur d'académie pour Dakar te fukki kat ak ñeent yu nek lycée Kennedy ci benen académie bo xamni mom jité jiitewu ko. Hmm. problème di ak tuné go xamni mo nek ci mbir mi ak jaay doole go xamni kenn mënu ko daam est-ce que yeen yeen président bi mu togué ba légui dalal na len wax ngeen waxtan ngeen. waaw lolu bokku na ci leneen liñ bëgg a wax xam nga ñun sax japp nañ ni quand même rew du du ku jog rek jubal palais ñun loolu ñu ko parce que bu fekké rew mi ngi dox normalement. am ay kuréel yu meuna recevoir les syndicats yo xam waxtan dana fa am bu dal te nekk plein potentiel du gouvernement yo xam ne bu déggo ministre yi tok toog mën nañ ca déggoo sax té du yegg ci président bu ñu yalla parce que bu xolé réew yu développé yi nga xam moy suñuy référence lolu euh, amu fa manam ñaari nit ñu jàppante sax né nañ dem pale lolu lolu ñun d'accorduñ ci parce que ken def warul dévaloriser désacraliser l'institution que représente le président de la république lolu d'accord nañ ci ñun moi, ta mu dalal ñu ak ñu mañ ñoo sax c'est pas le plus important. mais dalalu leen ba léegi mais dalaluñu ba léegi mais li ñu gën a metti ñun du loolu. Hmm. mais vision ou président de la république dañu gisul mu def éducation au cœur de sa vision alors que comme nous ñu ko waxee sànq ñun dañoo gëm ni réew du dem mën naa yëngutu rek waaye dem te njàng maa njàngale ma baaxul mënul ne parce que les dépenses d'investissement il faut président xam ko ñun loolu lañ gëm te gëm nañ ne ba léegi moom comprendre gul loolu. Les dépenses d'investissement sont des les dépenses en éducation sont des dépenses d'investissement c'est-à-dire que jàng ak njàngale lo ci def ci copar, yakoko, ko maanaam yaa ngay tàggat nit ñi wara yor sa réew ah, ba ñu am xam-xam bu ñu yore réew mi ba wa réew wa wa réew mi yëpp danañ mën a taxaw ku ci ne ca pàcc ba nga fété mëna a dooleel sa réew ba yeneen nation yi nga xam ne ñoom la ñuy bokkal gi

tuutee tuuti ba tekkiwul dara ci société bi mais jàngalekat boobu même bu fekkee école yi rafet na abri provisoire bi dindi nañ ko comme ni ko premier ministre bëggee mais bu fekkee jàngalekat boobu bu nekkee xal xel ma nekkul ca classe ba du jàngale donc intrant de qualité. bi ëpp solo ci njàng meeg njàngale mooy jàngalekat bi ñu jox ko gëddaam jox ko sañ-sañ jox ko man-man jox ko koom-koom bu koy tax bu nekkee ca classe ba mën a dal mën a jàngal xale yi. lu mën a dugg nga wax ni vraiment dafa am solo te loolu du si jàngalekat rek man dama jàpp ni tey ci nga xam ni da ngay xool rek alkaati yi mais tey sécurité moom xam nga fu mu amul munoo jàng munoo faju munoo def dara réew ma daanaka day tas mais ku mel ni ñu mel ni ñooñu mais dañ leen war a jox gëdd boo xam ne tey ñoom seen xel day dal ba seen liggéey ñu ñu wàccoog askan wi mais boo leen jëlee nga toroxal leen tumuraan ñu mais dañuy laaj ay téeméer ay ñaar téeméer kon du tey jàngale beeg jàngale jàngale bi rek mais tey ñun dañu war a càmbaraat suñu réew mi xool ñi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñu ngi yëngu si maanaam réew mi nan lay dalee nan lay amee koom tey ak ëllëg ñoo ñëpp ñu jox leen seen gëdd ndax si réew mi lañ bokk te ñoom ñëpp si war euh, a ñëpp si war a jëriñu Youssou yéen lan ngeen maanaam yan saafara ngeen am. ñun saafara yi am comme euh, déjà wàllu jàngale bi mu wax nii li am solo dañ ko constaté si milieu artisanat bi surtout. parce que la plupart des artisans c'est des analphabètes. ñu wër niveau. mais euh, xoolal baykat yi rek xoolal baykat yi. kenn mësuñu jàng dara dara xamuñu xamuñu aan yi dee. Ah. tu vois léegi ñu ne ñun li saafara gi mooy leen il faut que ñu defal leen ay formation ay renforcement de capacités. ñun loolu si suñu kër activité yi la. loolu da ngeen si jokkoo ak ñoom. ak ministre ñun jokkoo nañ si parce que yéen yëngu leen si yooyu. ñun ñu si jokkool. Ah. dañ dem toog ak ministre de la formation ministère de la formation ministre Bob bopp Mamadou Talla ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et de la de l'apprentissage. parce que moom si toog ñoom moom daf ñuy gis parce que dañu organiser un grand forum le 4 mai 2013. au mhm. CICES avec un thème c'est la redynamisation de l'agriculture et la revalorisation des corps de métier dans le contexte des coopératives face à la crise de l'emploi mm-hmm. madame amina tatal du président 16 conseil économique et social moko mm-hmm. ak Mamadou on avait mobilisé plus de 2000 personnes dans la salle le mm-hmm. corps de métier nous. il faut que mi directeur ANAMO directeur ONFP directeur FONDEF directeur euh, de l'artisanat nous toog autour d'une table nous avons un programme pour le Sénégal c'est intéressant pour le développement du Sénégal il faut que ñu appelions. mais nous avons que ONFP depuis janvier pour formation formation de nos membres hmm. jusqu'à présent Quelle formé dara

mooy réew mënul jëm kanam fekk liggéeykat yi amuñu xam-xam. tout à fait. mënul mm-hmm. nekk tey boo jëmee boo demee ay France yi. tey ñoom seen liggéeykat yooyu ñuy wax ñoom tey tur yi ngay dégg ay Coco Chanel ak ay ñoom Jean Paul Nangam sax ay artisans la ñu woon. après nag. Mm-hmm. jékki-jékki nguur gi ñëw jàppale leen jox leen ay formation jox leen ay financement tu vois ñu ñu dem mais tey boo jëlee ñun suñu mbay mi président nee na mm-hmm. euh, mbay priorité la. waaw mais baykat bi ou. daba kajendo mhm. ba maamaati mamam don baye ba leg mom mhm. lay baye mais loolu mënul dem voilà léegi nag donc il faut mom xam-xam yoo xam secteur bi mi wax effectivement dama bëggoon dugg ci tuuti secteur bi mi wax ni hmm. euh ministère bi yoré lolou hmm. wàllu xarala yi nga xam mom lañu wara ñu ci njàng meeg jangale hmm. mais président de la république néna mom moom moy mu dooleel ko mais ci budget bi ñi waaj voter assemblée effectivement mais joxuñu ko budget bu tekki dara mais xam nga aussi objectif yi xam nga man dama bëgg ñu arrêter la volonté politique bi ñi wax ay nous nous avons une volonté politique développer le secteur de, l'artisanat et le secteur de la formation professionnelle. Mais le président, il ne de pas parler. Mais nani, tu n'y chamber budget. Le budget ministère de la formation professionnelle est par exemple 2 milliards, devant les 30 milliards. Si vous avez 10 milliards, vous 40 milliards. Vous avez 50 milliards, vous avez 100 milliards. Il y a une option sérieuse. Il y a une option sérieuse pour dem mais xoolal joxuñ leen budget dara maanaam la ñuy wax ak la ñuy def ça fait deux te loolu tax réew dem ca mais daam xam nga man dama koy wax fii bés bu ne nee man volonté politique gëmuma ko xam nga lan laa gëm ñetti mbir mhm. décision politique mise en œuvre politique résultat politique parce que volonté n'importe qui mën a toog ni dama am volonté mais nan nga koy jëmmalee ñun loolu lañ bëgg léegi yéen waaw mhm. ba tax ñun au niveau du réseau de Yaakaar ñun xaar ñu parce que l'État, état nous ko xaar ko hmm. trouver suñu propre moyen nous appartenant à certaines écoles comme par exemple coopératif service hmm. formé nañ fi une trentaine une cinquantaine de femmes nous avons ak euh, ak ñu nous ñu fait une restauration ñu am formation ba avons ñu organiser au sein des coopératives ñu commencé à di def ay prestations de service au niveau des des baptêmes au niveau des des cérémonies de mariage au niveau des ay voilà du agrément pour certains dans certains dans certains services ñu commencé di liggéey di

di gërëm sama euh, Youssou mi nga xamni vraiment ñi ngi rafetlu vision bi amni parce que rew tamit ku ci ne da nga jouer sa partition ku nek dang ci wara bay sa war pour mu dox waru ñu xaar lepp ci état mais tamit bu état bi day def lo xamni rew mi ko dolel jox ko seen sañ-sañ ak sen man-man ñi ngi fa tok war nañu mëna a taxaw jouer le rôle de sentinelle pour que ne ko fi nga jëm du fofu du li lañ bëgg donc il faut ñu am une population citoyenne bo xam dañuy taxaw fañ wara taxaw ci wala wi may liggéey nak man mangi ngi ñaax parents d'élèves yi. ànd naa si de ñu jouer rôle bi ñu war jouer. parce que rew yi nga xamné yépp développer nañ parents d'élèves ya dañoo jouer seen rôle. waxuma leen ñu jël seen. jox ko ñetti magat wala ñetti maire yo xam ñoo naan ñoy bureau parents d'élèves yi. nga xam ne nekkuñu fa luddul dul di di di di jël 100 euh, francs 200 francs yo ñu leen jox ci inscription élèves man waxuma lool dama ni parents d'élèves yi nga xam ñoom ñoo yor seen i doom jur leen. Hmm. yóbbu leen ci école yi ñu fay jànge nga xam ne ñoom ñoo am intérêt. ci hmm. système bi baax. pour seen doom mën a mën a mën a réussir ëllëg. Hmm. doon tekki ci réew mi. donc ñooñu laay ñaax ni leen. taxaw leen fi ngeen war a taxaw te bàyyi seetaan bi. la bu leen seetaan jàngalekat yi ak état bi kese ñuy taxaw di décider ci seen sooru doom yi parce que yéen da ngeen cee bokk. da ngeen di ñëw taxaw ak jàngalekat yi ak ak état bi ni leen lii lañ bëgg. nii lañ bëgg suñu école bi doxee ko état bi bu ne xaalis boobu nga ci yéen lañ koy dagge di ko utiliser ci école yi defu ko fi mu ko war a def ngeen taxaw def ay marche def seen i sitting dem dem gis président dem gis premier ministre ne ko président lii nga xam ni moo ngi am ci njàng may njàngale mi baaxul. ndaxte ñun suñuy doom kenn duñ nangu kenn sacrifier leen. mais nag toog di seetaan rek. naan yàlla baax na. loolu jëmalewul réew kanam donc loolu ñu ko wax ñu ñaax nag aussi le président de la république mu jël ay responsabilités parce que pëccëxoo gi bari na ci njàng may njàngale ministre de l'éducation na tok waxtan ak nit ñi te baye jaay doole bi benen bi nak moy aussi ñu fexé ba nga xam lepp li nga xam ne carrière jàngalekat yi ñu koy sacrifier sen acte de reclassement yi du génn sen accord yi wara signé ak gouvernement ñu bañ ah, ko signé ya may dégg avancement yi ñu bañ ko def donc dama koy rappeler parce que c'est important parce que dañu la la répétition est pédagogique ça à ñu rappeler ko bu ko défé ñu xamni ñun jangale kat yi ñu dem grève ren loolu moy suñu objectif ñongi jël engagement devant le peuple sénégalais que su fekkene ne nguur gi yi ma fi wax def na ci liñ ci war a def ñun jàngalekat yi pare nañ pour ñu am ren at moo xam du am benn coow. loolu nag ñu ngi koy wax ñëpp ñu dégg ko bu ko defee nag bu coow amee rek nañ xam ne du ci suñ côté waaye ci côté nguur gi la parce que jàngalekat yi jàng ak jàngale mi dox moom mooy seen moom mooy seen loolu moom daam loolu franchement loolu moom man am na ñaar yoo xam ne dama si ànd ak yow bu njëkk mooy parent d'élèves yi ñi nga xam ni seen doom ñu ngi si l'école yi ñoom ngal la nañu bañ a sàggane seen ay doom dañu war a dem xool seen doom yi li ñuy jàngee nu mu mel xool bërëb ba nu mu mel maanaam càmbar ni ñu leen di jàngalee ndegam jaar na yoon wala jaar yoon ndax ñoom dañu leen di yónnee foofu ngir ñu tekki tey yow yaa ngi yónni sa doom si benn l'école xamoo lu muy def amaana sax l'école ba nu mu mel moo tax xale bi di bàyyi jàng xale bi buggul jàng bu ñëwee si kër gi nga dóor ko yow buggoo jàng ndekete l'école bi nu yow kon parent seetaan waru beneen bi tamit mooy nguur gi li nga xam ni moom khatim nako wala li nga xamni deggo nako na ak jangale daf ko tamit and nañ ne que mo wara doxal école bi nguur gi ay la yewon nako khatim nako signé ba jëmmal ko kay yom na yow réfléchir sur problème euh, Sénégal développement Sénégal indi ay solution ay piste de solution li c'est un projet boo c'est un expert en agriculture en horticulture avec la coopérative agriculture projet bi projet de promotion de projet projet de promotion participative de l'horticulture de petite échelle au Sénégal parce que gis nañu par exemple Sénégal agriculteurs ils sont sous-occupés trois mois nous liggéey kese te ñu ngi ñu ko wékk ko taw hmm. tu vois ñu avons nag projet bi dafay indi mbay moo xamante ni fait étaler donc sur douze mois est-ce qu'il y a si ligue avec le ministère de l'agriculture ministère de l'agriculture dem nañ ko fëgg portam ba sonn mënuñu jot toggoog nañu Mor Ngom taay mu nekk directeur cabinet wan ko projet bi. bu woo daf koy dafa jot mu nekk boîte vocale mu ne ne naa bu mu toog waxtaan ngeen. ngeen ministre yónnee ngeen ko projet bi. il faut yónnee yónnee ko mais dañ bëgg jox ko. parce, que da ngeen di ragal ko gañi yi voilà déjà dañ ko protégé dañ ko au niveau de la du BSDA. dañ ko protégé kon kay kenn mënu ko kii voilà len ko ministre yónnee len ko président yónnee ko yónnee parce que parce que lii buñ ko défé hmm. na créé plus de 50 000 emplois. nga d'ici 2007. Donc sept loolu dañ ko saytu gis ko. problème crise d'emploi bob. solution fi la nek ah loolu de am na solo te day permettre bay bo xamanteni dans les secteurs urbains. périurbains et dans le secteur rural. at mi yëpp lay doon at mi yëpp. Ah, mi horticulture ak marchand di promouvoir aussi le consommer local. parce que mënuñu tamit di. di wax développement sans pour autant ñu mën valoriser suñu produits yi consommé. donc mu nekk secteur agriculture comme mu nekk secteur artisanat bi. Youssou donc gis nga seen mbir mi. président de la république premier ministre ministre de la culture ministre de l'agriculture ñom ñep ñëpp am intérêt. et puis ñun dem def tout pour rencontrer premier ministre actuellement mais ñi ngi président de la république. trois audiences introduit nañ ko donc pour nous sommes prêts. vraiment pour pour euh, être au service de l'État parce que le désordre de la euh, il est pour les populations et il travaille avec les populations et dans les populations. donc nous sommes une mission de rendre les populations acteurs développement à la base. Si nous par exemple self help help. moom la ñuy def le développement autocentré mm-hmm. moom la ñuy kii maanaam daal jàng jàngal nit ki mu napp voilà mu napp voilà c'est ça ñu ngi lay gërëm yow Youssoufa Sy euh, réseau dooleel yaakaar nga bokk waa réseau dooleel yaakaar ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar euh, commencé ci présidente bi euh, di la gërëm yow tam Dame Mbodj yow yaa jiite CUSEMS syndicat jàngale jàngalekat ci daara yu diggu doom yi ñu bàyyi leen léegi ak seen jàngale bu njëkk ci bés bi